السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك طالبي في تيو يب ما نجلن نيو ci turu taalibe yu nekk ci dëkk bi bépp te di leen siyaare tey bég ci bis bii dellu siwaat fii ci Cees ngeen yóbbuwaat ko nu gën a na mu demee woon kon loolee gannaaw bu ñu leen nuyoo ñu ngi leen ci sant bu baax di nuyu nag kilifa yi nga xam ne daanañ fi teew teew siwaat nañ fi sëriñ Moustapha Sourang mi ngi nii ku ne xam na li mu doon ci yoon wi borom yoon wi maamam la muy Serigne Touba loolee rekk doy na ab garaat ci àdduna ak ci àllaaxira loolee mu teg ko fee laxasaayu ànd ak yéen ci bis bi jox leen këram jox leen boppam yëkkati it lu ko leew doom di ko ci def kon sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax ci turu taalibe yépp ci li nga xam ne toggoo nga ko daayira xasaayid yi na nga xam ne am na lu ma la déeyoon maag yow na nga xam ne sama boroom du maye di nangu mukk mu yeex mu gaaw ñoo ci bokk yam waaye du maye nangu kon ñun ñëpp nañu gën a rafet njort ci yow gën laa jàppaatit xam li nga doon ci sëñ Tuuba xamit kan mooy sëñ Tuuba moo tax nu rafet njort bu baax a baax ne dañ la fee andi te sab liggéey matagul te faaw nga matal ko bu loolu wéyee maa ngi nuyu it sa bokk yi nga xam ne yi fekk nga leen am na ci ñoo xam ne mën na maa daal tëb jaar ci tur am na ci ñoo xam ne it xel mi daa gàtt lool waaye ku mel ni sëñ Mouhamadou Lamine Mbacké mi ngi fi teew ak yeneen i bokk yoo xam yi teew nañ fi bu ma mënta jaar ci seeni turit teew nañ fi di nuyu waa daayira xasaayid yi nga xam ne tey diir bu yàgg ngi ngeen di fi tase di jàng xasaayid Sëriñ Tuubaa yi sëriñ Ibrahima Guèye mii ak sëriñ Xaadim Fall mii ak mboolem ñi ànd ak yéen ba tey mu agsi fii na ngeen xam ne xasaayiti sëriñ Tuuba yi léppam ci la ne ku ko jàng yaa ngi mel ni fooy bañ looy denc muy wurus wu tege fi barab te nangoo dara laal ko waxtu wet ngay ngay pomp jàng xasaay yi la mel ci yoon wi boo dee jàng boo dee jàng xasaay yi ci yoon wi it yoon wi ku ci nekk xasida yi dalay raxas sa xol ndegam sëñ Tuubaa nga ci xasida yi da lay raxas ba nga seet wecc kon loolu liggéey la bu rëy boo xam ne yéen a ngi koy liggéeyal tariqatul muridiya te na ngeen ko jëmee kanam bu baax la ca des ku bër bëgg ay martaba sa digganteeg sa borom del jàngi xasaayid yafooqu taalifiya sayqa tarbiya bila tafaaqurin wa sayqa tarqiya moo ko waxal boppam sama xasida yi moo gën a kawe sariyab sama xasaayit yi moo gën a kawe sëriñu tarxiya buy àggale nit ci yàlla sama xasida yi moo ca gën a gaaw kon boo gisee ab bi dugg xalwatu baax la def waaye sëñ Tuubaa gën a gaaw xalwatu boo yoree xasida yi di ko jàng waaye boo dee jàng xasaay di bàyyee sa bopp ak sëriñ Tuuba la gën ci yow da ca jot bala la ko jax jox nag dana la dàqal la gënu ci yow te tàggook la gënu ci yow nag moo gën lépp ndax luñ la man di jox te mënoo ko yor kon lu gënut mu ngi ci yow kon na ngeen rafet njort bu baax ci njàng mi ngeen di jàng xasida yi waxtu wu ne te jëmmi Sëriñ Tuubaa rek tax ngeen di ko jàng na ngeen rafet njort sëñ bi kët lu ne wax na ko ku bëgg a tàggoog seytaane del jàng xasaayid yi ku bëgg am yàlla del jàng xasaayid ku bëgg ngërëmam del jàng xasaayid yi ku bëgg ku bëgg a mucc ci àdduna del jàng xasaayid yi ku bëgg a mucc ci seytaane del jàng xasaayid yi xasaayid yi moom ndox la moo xam ne mi lépp lu taq da koy póot ci nit ki lu man di doon dana ko póot ma di leen di xamal ne yit am póot faw mu metti ci ki ñu koy fóotal ndax si sa sër yépp bu tilimee buñ lay fóotal yaramu neen ngay def dañ koy weer ba mu wow ñu doon la ko solalaat balañ la ko solalaat man ngaa jàpp ne dañoo fab sa yére waaye yaa ko tilimaloon ñu di la ko defaral dañ la koy defaral rek waaye bu defaroo danga xam ne ya eh, yàq kon nag na ngeen góor góorgóorlu bu baax a baax te jëmee ko kanam àdduna yi ne leen ko tegg fee bañ ko cee sàkku ndax borom ba mu koy wut sàkkuwul woon àdduna ba saa borom di wàcce lii jamam moom sa sàkkuwul woon àdduna jëmmi boppam jala sàkku woon amul loo xam ne lii xam nañ ne sëñ Tuubaa bëggoon na ko ci àdduna xameesu ko lu mu jotee ak àdduna it xameesu ko mboolem ko amoon àdduna ci jamonoom àggoo woon ci moom dugg sa kër duggoo këram muy bóor muy lu dul bóor képp koo xam ne rek àdduna ganesi na la sëñ Tuubaa tàggoo na ak yow yow it tàggoo nga ak sëñ loolee mooy doxin bi nga xam ne mooy doxinu sëñ Tuubaa képp ku laxasaay nag ci ci xësaay di bëgg bëgg xasida yi nag yëkkati la ca kaw na sëñ bi doxe woon doxe ko fawu nga am loo dàq ba mu tàggoog yow bu dee àdduna dana la ca jox lu la doy waaye du la ca jox mukk lu lay yàq ndax lu la yàq amul njariñ kon na ngeen xam ne li ngeen yorit li muy rëy rëy rëy am na lu mu nangu am na lu mu nanguwut muy dox bu jëm ci yàlla nanguwu daagu te dangay ngay ñeme xiif da ngay ñeme aw mar dangay bañ a nelaw waaye koo xam ne boo xiifee tëdd doo dem koo xam ne boo maree yooxu doo dem koo xam ne boo doxee tuuti tayel tëdd nelaw doo dem dem kuy dem ci yàlla da nga tàggoo jikko yooye kon na ngeen góorgóorlu bu baax a baax te gën a xam li ngeen di yor ba na ngeen di xamee na ngeen na ngeen di àggee ci yàlla na ngeen te góorgóorlu dem gi nag ku ne yaa koy defal sa bopp ku ne yaa koy defal sa bopp sëriñ bi ñoom àndaloon jamono ñoo ko fekk si woon ñëpp la mu nekkoon ba mu leen ca naqee ñoom ñëpp àgg nañ ca yàlla loola nag ci sëriñ bi lan lan mën a wax ne ca la yem benn nu nun noo doxewut ñu deenu jox jox nu ba noppi te liggéeyu nu bari na ca noonu ndax bu fekkee ne dangaa bëgg dangaa bëgg a peeñ doo déggook sëñ Touba te xasida yi ñooy sëñ Touba ndax moom fi mu nekk boo ko gisee rek di nga xam ne boo gisee alxuraan gis nga sa borom boo gisee xasida yi gis nga sëñ Touba néewuma ñooyam waaye it dañoo wax ne Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu anhu mas naa toog fi sëñ bi am ku yor ay xasida génne fi sëñ bi mu ne ko loo mu ne ko xasida yu sëñ bi de mu ne tekk ba ak mu ne ko ah moo ko alxuraan de lépp jóge fa yàlla te lee mujj ñëw waaw ne ko mu seere ko kon nag lu mat a jàpp la ndax kookee lu mu seere ci sunu borom ñëpp day jàpp xam ne loola am na kon nag nanu góorgóorlu bu baax a baax te gën a seetantal li nu nekk gën koo jàpp te wattandiku lu bari loolee ko ku ko def da gis njariñal xasaayid yi jàng gi dem képp nag di geestoo defe ne mi ngi ñëw du ñëw du ñëwee noonu mukk na muy ñëwee foofu daanaka bakkan bakkan sa bakkan dana root ndax lu yomb ndax borom ba mu koy def xam ngeen fi mu jaaroon lu ne defees na ko ko wóor nañ ne takke nañ ko ak ko garab petal ko wóor nañ ne sànni nañ ko ci géej wóor nañ gas nañ ko suul wóor nañ ne sànni nañ ko ci fuur lépp muy mucc ana ko musal sama borom mi nga xam ne boolewu ko dara te mu jàpp ne dara mënu koo dara mënu koo wàññi ku dul suñu borom dara mënu ko jariñ lu dul suñu borom tawxiid boobee nga xamee amoon na ko ci suñu boroom nag taw tawxiid boobee noonu nii ku nekk na koy jéem ci sëriñ Tuuba jéema te it nu am loo xam ne nun ñëpp war nañ koo am am mooy sëñ bi nga xam ne dafa ñëw di kéemaan suñu borom jóge ci asamaan wa ñëw jóge ca suñu borom ñëw def lu kenn mës def noo ngi koy wutal ay ay ay nawle yu bare bare bari ci biir këram biir këram laa wax feneen sans yoon nekku ci waaye bu fekkee ne kenn képp képp képp la nun ñëpp nu xam ne kenn la te moo nuy jariñ nun ñëpp nu laxasaay ne ko yewa lin bëgg danañ ko am adduna danañ ko am àllaaxira waaye bu fekkee ne nag lu nu laxasaayu laxasaayu nag keneen la nuy tàcc duñ ko tàccu du yomb leen ko bëggee ndax ba moom ba mu koy wut rasulaay rek rasulaay rek la la la la la woon keneen faalewu ko rasulullah yàlla rasulullah muy allah muhammad ca la nekkoon soxlawul leneen ba mu demee ba nga xam ne sa borom rasulullah yi ku jëkk jëkk jëkk jëkk a fay ndax ba mu ne bëreet àgg ci àgg ci rasulullah jafe àgg ci rasulullah jafe na lool àgg ci sun borom jëkk gën ko jafe te ba mu ne bëreet sama borom da ko ne demal demal ci muhammad mi dalla ni allahu ala muhammadi demal toppi ko mu topp ko mu topp ko mu topp ko mu topp ko mu topp ko mu topp ko ba rasulullahi lam bëggoon lépp lépp sëñ Tuubaa def ko mu delloowaat ko borom wa xaada ni muhammadun li samadi ba mu ko delloo boromam nag lees ci mu jaxam dara sëñ Tuubaa ngoog jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul kookee nag ku koy liggéeyal faw ngay laaj lu war ci liggéey bi du ceegee nag rek nga jënd sa téereb xasaayit dem fee tàmbali di yëkkatee ka kaw ak di jeeneer ba yàgg ngay yooxoo ko daanu mel ni danga gis sëñ Tuubaa mel ni danga gis leer teel na faw nga tumuranke moom day ba mu ne lii ci yàlla la bàyyi ko muy la waxul maxfuus loolee kenn nattabliwul ne ba mu ko daata am dañ na lu mburu ma dajut ca taal ndax taal bi day lakk mburu mi mburu mi lakk ni moom waaye moom de ba ko taal ba lakkee lëkkut hmm. kooki kooki mooy sëriñ bi nan ko joxaat cër bi bul ne yàlla la bul ne yonent bi la bu ca sa yoon nekk jàppee ko li mu doon ana lu mu doon digganteem ak rasulaay nee na kulliyati mujizatun taaqarat maay kiimaanuk rasulaay gi mujj a ñëw kon kiimaan gi bàyyi koog rasulaay bu ko gëstu toppal diggam ak rasulullah baana li kulli man lahu wilaaya kaw ni li xaaliqil baraaya ay képp kuy wàlliw ku am benn sero ci sax xam nga ne man kiimaanu sama borom la nan bàyyee son borom ak kiimaanam bàyyi rasulullah ak kiimaanam loolu bu nu ko defee tàmbali ko jox àqam waaye ku bëgg a mel ni moom tàmbali ngaa tardé te gis nan wàlliw mag wu kiimaane boo xam ne dañuy wax ne xut bu samaan la muy Cheikh Saadu Abi nee na xalafa samaanu la yaatiyanna bi mislihi xanisat yaminuka yaa samaanu fa kappiri jamono day giñ na nee na dinaa indi ku melaat ni Sëriñ Tuuba nee naa ko tiñu na tiñu mooy lu mënta am la kon demal kafaara sa ngiñ ku mel ni Sëriñ Tuuba du am loolu Cheikh Saadu Abi seere na ko ci Sëriñ kon ku mel nii boo ko joxee sa bopp jéem a xam nangay àndeek moom te rik bu nu waaba ji ba waaba ji ba mooy jox sa nit sa sa jëmm ji nga jox ko nit ba noppi ne ko yaa gën ñëpp te sewaata ci sëñ Tuubaa nga jàpp ne sëñ Tuubaa gën ñëpp loolu wax koy topp topp ko sëñ Tuubaa lu lu mbokk mu ne topp topp toppal deret ja deret ja it loo loo loo defal deret ja defal nga ko borom borom deret moom loo ko defal defal na ko borom ba tax na yow bul xool ku tege ci yoon bul xool ku tegewul ci yoon yow seetal yoon yoon bi nga war a tege yow tege ca sa digganteeg sëñ Tuubaa ka nga féeteel it liggéeyal ko ngir jëmmi sëñ Tuubaa waaye na nga xam ne du sëñ Tuubaa loolu moom na ko ñëpp ñëpp xam kuy sëñ Tuubaa moom waaw ku yor dereti sëñ Touba nag moo la gën gën nañ ni ci dereti sëñ Touba loolu na ko ñëpp nangu waaye nag deret de doo ko yor ba noppi ne maay sëñ Touba déedéet géntu defoo dara gént gi gën a woyof ñëpp a ngi gént waaye du loola sëñ Touba moom ba mu ne bërit jëm ci yàlla kenn da ko fa fekku ku ko gën a nangu it yaa gën ci mboolem sëriñ si sëriñ bu gën a nangu loola yaa yaa ci gën nan xam ne ku ne gis ko njëriñal sëñ Tuubaa taalibe yi gis nañ ko bokki boppam yi gis nañ ko njabootu boppam gi gis nañ ko am déet ku ne gis na njëriñal sëñ Tuubaa loo bëgg ci taalibe yi tay taalibe yi defal la ana ko defar taalibe yi xaadima xaadimal Mustafa kooki mooy mooy defarkat bu mag bi li feeg nit a ngi bañ ragal a wax loolu du taalibe li ab sëriñ ci njobootam ñi ngi nangu ku leen di tagg bàyyi sëñ Tuuba tegeeguñ ci bu am déet faw nga nangu ku la taggal sa maam sa baay sa mbokk loola nga nga daanu ci moo gën dàq ko ko ndax mooy mel naa ni moom man sakka fii salika fal ju jarribi wa man ju jarrib ba bi taqarubi da ko waxut nee na fi ma jaar ba dellusi ku ci am lu muy sikki sàkk na dem seeti ba xam dana dellu seem di kooku sëñ Sëriñ Tuubaa ko wax kon du kenn du kenn bu fa yóbbu kenn it bu fa yóbbu deret ji nag ku ko yor teralal deret ji moom ku ko yor teral waaye borom deret ji nag xam ne kay boroom mooy kee kon ku ne nay gën a bët bu set nay gën a jàng yoon wi te gën a xam yoon wi njàng mi dana metti ba ci lii may wax dana am lu naqari garab gi dañ ko bëgg ci lenn dëgg la ni dana tàggoog sagoom waaye dañ garab nga ta tàggoog sagoom ko indi te moom lay gaañ am nit waaye sëriñ boo xamee ne bii gàddul ko kuur ak dóoral ko sa bopp rek dóoral ko bopp nga defee ne moom la sa war a terale ab sëriñ doo teral sa sëriñ ab coono képp ko yëndi ab sëriñ da ngay dem futti ku liggéey di ko jox addiya waaye teeru ko dóor dóor saw yaram ba mu kii nga dem tëdd fee du sax añ ba neex mukk ca àdduna ah kon nag li gën muy futtiku liggéeyal sab sëriñ loolu ma nam man di def boo ko liggéeyalee yaa ngi liggéeyal sëñ Touba bu ma nee ma nga lay defal bu mënu sëñ Touba defal la loolu moom lanu war a jàpp kon nañu góorgóorlu bu baax a baax tege fi nga xam ne war na faa njàngum xasaay yi na ngeen na ngeen ci góorgóorlu waaye lu ngeen ci góorgóor góorlu bët bu seen na ngeen di na ngeen di dóor seen bopp ci dun dara bu leen jàmm bu leen bu leen bu leen jàng ba ne noo gën nit ñi koo ko def yàqule koo def daal di yàqule bi saa sëñ Tuba ba lii wàccee ci moom ndax bind na fenn ne maa leen gën bindut fenn ne maa leen gën te booba wóor na ko ni li sun borom di def ci moom menn mbindeef mu mu def ci ca loola ci ci ci ci moom def ko ca ndax li mu defal sun borom defal ko xaadimu rasul defal ko julli defal ko mbooleem ko naa laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sëñ Tuubaa def defal na loo xam ne lii ñi baax bari nañu lool waaye raw na leen ca loola boobee nga xam ne amul ndox mu mu naan amul ñam wu mu mos amul néeg bu muy dugg amul séer bu muy teg ci yaramam jaarul foofu ku jaarul foofu yées nga sëriñ bi ñu bal ma àq it ndax jamono jii nu nekk wax baaxu nit day mel ni ku kenn ngootut waaye sëñ bi de fi mu jaar ku ko seetaan ku ko seet ci xel te xooloo ko ci noonoo xooloo ko ci bañ xooloo ko ci dara da nga xam ne waajaa ngi kon nag na ngeen lu nekk ci lii bu mu ànd ak puukarewu nag ndax kii kat ba ko tubaab yi yore lu ne def nañ ko te at yu bari la te booba yor na loo xam ne lii bu ko doon def àdduna yu tukki waaye amu ci soxla ku ko roy ki bañ ko sumee takk ko garab ga woo fukki daan naag nangam ne leen nañ ko fetal bu ndigal yi ñëwee Rasulullah fekk ko fa ne ko loo bëgg mu ne ko liggéeyal la ceeral la moom Rasulullah bu ko ne woon mucc ñu xam ne ko ragal a ngi nii bu ko ne woon mucc ñu xam ne fa mu war a teg Rasulullah tegu ko waaye néewu ko mucc néewu ko dara da ko ne liggéeyal la kàddu googu lu mu gàtt gàtt ndeem xam ngeen mboolem li ñuy waaru kàddu googoo ci gën a rëy fukk ak ñett te duñu mooy mukk feetal yi neen yii rasulaay feeñu ne la loo bëgg te xam ne mën na laa musal mu ne ko liggéeyal la loolu ci la ñuy xool ni ko mun moroom a ngi nii li ci des nag yàlla mii amul moroom waaye gis nañu ay diine yu ko wutal moroom ñii nee nañ am na doom ñii nee nañ am na soxna ñii nee na dana lekk dana naan lu ne teg nañ ko ci te wax nañ ko ci sunu borom alxuraan a ñëw weddi lépp waaye la muy weddi weddi taxut ñenn ña bàll njàppoon alxuraan la ñu daal di dem équisi ko ci lu bëree bëri alxuraan moom bi alxuraan rek lii nga xam ne nag mooy li wàcc fii ci senegal muy Sëriñ Tuuba man de yetti yëf saa yàlla mooy saa borom mooy kii ñu yónni Sëriñ Tuuba mooy ki ñu xamul boo ko jàppee loolu moom xam ko waaye bu ko jéem a xam bu ko jéem a xam ndax boo ko boo ko jéemee xam man ngaa toxal am ak suñu borom la te mën na laa bañ a jub xam waaye jàppal rek jàppal jàppal rek bu fa yóbbu kenn nag koo man nga am taalibe bu la romb ak sa gañ yi ne la yaay yàlla yàlla nga defee ne yaa ca ne nekk ko ca benn morit léegi bu nanguwul ku ko jox ay karaama amul morit boo joxi karaama mu nangu fasaa sax dana la dana la tontu mel ni xam nga ne day day gis yo mu tàmbali di la nettali ay gént te gént mooy li ci gën a ñàkk solo ñëpp mbaam yi sax dañuy gént dellu sëñ bi moom boo ko bëggee xool xool ko ci diggam ak tubaab yi boo bëggee xam kan mooy sëñ tubaab xool ko diggam ak tubaab yi boo bëggee kan mooy sëñ tubaab xool ko ci digganteem ak jullit ñi senegal gi kenn dégg na benn jullit sëñ tubaab teg ci deram ba dara dégg nañu kenn koo xam ne sëñ tubaab mën naa jokkoo ak moom te jokkoo wut ak moom sëñ tubaab moom sëñ Touba ku liggéeyal ñëpp la liggéeyal na yàlla liggéeyal na yonanti liggéey na mboolem ko naan laa ilaha illallah muhammadu rasulullah liggéeyal na la sëñ Touba foofu la nekkoon nun ñëpp nan mu maasee takkuwaat te laxasawaay te na ko yewa demut fenn moo bindi ci xatmatul munaajaat ne ñe ñeenti téeméeri at dinaa ko fi te xam ne téeméeri at bi jeexagut kon ñetti téeméeri at a ngi fi yoo xam ne demagut kon nanu góor góorlu bu baax a baax te te laxasaayaat bu baax a baax ku ney naqee boppam ku ney na boppam bu dara rëy rëy rëy boo toogoon ak moom mu ne la def naa la tey jii ngay boroom jamono fa nga jaaroon ba mu ko jikko ja nga yoroon ba nga doy ba nga doy ko jëmale ko kanam waaye bul bul net bul bëgg a nit ñi may seen kilifa ci yàlla sama boroom lum la may tegal fee te dolli sax njaam sa diggante ak moom koo gis muy bajant ci ak may du yàlla kon nag kàddu yi doy na ba weneen waxtu ñu ngi leen di sant te di leen gërëm bu baax a baax te ngeen rafet njort te ngeen rafet njort bu baax it ci seen bopp na ngeen xam ne ñu mag ña fa ñu jaaroon ba ñu am la ñu am yéen a nga fay jaar rik na ngeen jëm kanam te bu leen jëm gannaaw ana luy jëm gannaaw gi bu leen ñi ñuy tagga tagga tagg ba ngeen geesu nit ñi nit ñi mën a luñ kenn dara de mën a luñ kenn dara ana ko mënal yàlla yàlla moomee boo fasee lépp jàpp sa borom léegi nga xam yi waaye nag luy jëm ci yàlla mi ngi mel ni ku jëm ci dëkk faw nga laaju yoon faw nga laaju yoon ñu ne la mi ngi nii yoon wi ngay laaj mu àggale ci yàlla nag mooy ab sëriñ faw nga laaj faw nga am sëriñ bu la teg ci ci yoon li nga xam ne nit ñaa ngi ma ciy mere waaye dëgg rekk la dëgg rekk nanu xam ne faw sa borom lam bindoon Serigne Touba nee na bind lam wax ci alxuraan bindul ku ko jaral far loola jëlle na naa lu yu caaxaane caaxaane waaye martaba bala koo takkal kenn dangaa def la ko neex li feeg defoo la ko neex du la takkal dara aduna ci nga xam ne defe ne ne kum kum ko jox am nga ko kera nga ko sori bon te moom da dul maye adduna ndax aduna lu yàq ni rek la te du ko may nit mukk de du ko mayee mukk mukk mukk amul kenn koo xam ne sëñ Tuubaa moo ko may alal jamu yoon ñi ngi wadd nag léegi di ko wax waaye boo demee ci téere li mu bind da nga xam ne bokkut ak li nit ñi wax mës sa soxlaal kenn dara sa soxlaal kenn dara loo ko andil it bu lewee bu dee mos dara ca loola la koy mos bu léwul du ko jox nit da koy gas suuf kooku ma doon sëñ Tuuba maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm maa ngi ñaan ngeen di ngeen ñaanal ma sa borom gën noo wéral gën noo fee bàyyi ba liggéey bi nga xam ne bëgg nañ ko ko liggéeyal <coughs> muy noonu taalibe yëpp tege ci aw yoon baram mënu ëllëg bañ a jafe moom lu mu bëgg ci boromam dana ko am waaye bëgg goo xam ne ba bala nga ko balañ la ko jox mu jafe nag laay bañ dama bëggoon nun ñëpp nuy kër kër yi ba jege jege li mu bëgg ba du sonn waaw ba du sonn rek loolu buñ ko defee rek mujj te loolu dara gënu caa nag liggéeyam bi liggéeyam bi ndax leer loo seet nit a ko yor waaye waaye moom yoru ko xësi day la kenn yoru moo ko yoral boppam رضا ورحمة